jërëjëf euh, jaajëf Abdoulaye Diop jërë ngeen jëf Yacine Pouy internautes ak auditeurs yi déglu RFM 94 point 0 la rajo de toute l' actualité la rajo du Sénégal ah stade du Sénégal la rajo du Sénégal euh, yéen a ngi seen journal des faits divers xalaas ànd ci ak euh, Mamadou Mohamed Ndiaye xam ne heure bu sentiree noppalu ko toog noppaliku woo ma ma ne ko Ndiaye loolu dal mu ne ma daara sonn rek di noppalu ko. yàlla na yàlla defal la jàmm loolu moom nga déclaré ci rajo bi yàlla na yàlla defal la jàmm <laughs> waaw damaa bëri sutura passe maa ngi lay kontaane sama waay waaye balaa ngeen nuyoo mhm. jox kilifa gi mu nuyoo ba noppi salaamaaleykum kilifa gi nga lay siyaar bu baax Ndiaye. problème ngay def wax Ndiaye kilifa fi toog kan la. Ndiaye yow la. ah d'accord ah loolu la kay <laughs> wax ñun de ñun de te kilifantu. Ah, yow kilifa. <laughs> maa ngi lay nuyu Ababacar. ñu ngi lay fay maa ngi eh, sant waa Sénégal. maa ngi mhm. leen di gërëm ah. Mhm. Eh, li may faral di wax rek boo toogee ñëwoo xalaas. Mhm. ci ngay gën a xam njëriñul xalaas. wallaay dëgg la. yàlla ñu yàlla defal jàmm sàngu ñu sutura dooleel ñu bali nit ñi di xaar ci ñun saa su nekk rek ñu mën koo matal amiin yaa rabbi ah? amiin yaa rabbi nga damaa noppalu ji woon ah yow de ci nga dëkk amal nga ma weccet de ma nekk di détaillé nag waaye amal ma weccet eh, man day ah, dama la koo teel man day ba ma ba nga ñëwee ni ma am ñaari billet daa jël ma jëlaat sa xaalis ne la am nga bañ man ci laa man man ci laa lii parce que bi nga ma jox xaalis li nga ma ci wax yëpp dama laa jox sa xaalis nga bañ ci kanam ay témoins yu bari waa yooyu tax doo koy def chaque jour waaw yow Ndiaye loolu dafa mitti réew mi soxla ree dëgg la nag dëgg la surtout ci place yu mel noonu waaw toog abaa deel woote ndaje yu mel noonu waaw waaw dëgg la de nga xam ne rajo euh, euh, télé Ndiaye boog dafa nañ seen mën rek ban fan ban dara guerre. ba ña. kii waa lu triangle waaw luñ defati. ah accaparé nañu suñu xew mi. xew ma. xewu suba bi. TFM takk ci rip nga am na xewum suba bi. yow kon xanaa yëgoo lu xew. lan moo xewati. RTS nee na. Hmm. ku ko bëgg signalam ngay jël. waaw. ay ligne ligne éditoriale ngay jël. waaw la mu teg moom ngay jël. ah waaw amul ay teg fii Abba wala Mohamed Ndiaye muy wax man ni nag TFM nag euh, wax dëgg yàlla ma naan TFM RTS nag wax dëgg yàlla mooy nday di si télé yi nag nan ko nangul li mu doon nag. waaye dafay jaxaanaay ah, man nag gis nga bu ma énervé bu commencé am. bañul jox kenn nee na nañ jël ñëpp léppam mais nañ. nañ tëddee njaaxaanaay Abba li xew bi ñëpp ko bokk Sénégal la moom. waay Sénégal la moom moo tax télévision Sénégal lañ moom lañ koy jox lii mooy public lii yëpp ay privé la ETS moom dootuma nangooti ku ko laal feneen fu mu ne. mais xam nga luy problème bi. Mhm. mooy bu ñu yekkee ñu bàyyi ETS. ba ci mhm. bëlaate. Mhm. dañoo war a jox nit ñi seen ceeb ak seeni lujum. ñu xool nu ñuy séddalee waaw waaw waaw. d'accord naa événement bu ni mel ñu jox ko télévision publique. waaye nag bu mu sàkkal nit fu ñu yem. tey bu ñu bàyyee télé privé yëpp ñuy lëcc lëcc ak seeni i caméra ak seen i ak seen day xaw a doy waar. donc kon ñu jël signal RTS du jaadu la par contre nag li ñu mënoon a ñàkk mooy. lay jàll RTS. moom ngay jàll sa télé xaw ma techniquement nu ñu ko mën a lijjantee ba RTS di joxe ñoom ñuy seet nu ñu jàllalee. mais xam nga aussi tamit événement yu mel ni aussi dafa dafa bari yum laaj. mais mais daal kon boo bëggee euh, fi ñu toll nii boo bëggee dégg-dégg mooy bu subaa Euh, programme ku ko bëgg a teg RTS ngay nekk. waaw <laughs> mais koo joxe rek baax na. yàlla na comme nangu nañ na bëgg de yaay damay na bëgg nag ak fu mën a yem damay na bëgg événement yi lan am dañ ci seen tànk tubay def ci li lépp. profité ci événement yi lu xalaas gi wax. profité ci événement la. jaay seen bopp par force jaay ah, loolu ma naan TFM bi la de la loolu moom waaye njaay nag télé publique nag moom saa yi. waaw loolu dafa war la àndal de ah loolu de mënoo ko bañal nag. man ànduma man ànduma ak ñoom man ñoom laa àndal de. xam naa man hmm. xam naa ni yàgg yàgg fa lay mujj ñoom laa àndal de. RTS waaw. <laughs> laa wër man Ndiaye man touriste laa mënumaa toog eh, kii na nga ni lan la nga ni ñii naan ñii ñoo ne ci yoon. tey rek ci juriste yi lañu jëm sax. ayca Ndiaye. Mhm. Ndiaye ñii de ay ay juriste lañu. Mhm. nee nañu ñoom ñoo ne ci cabinet avocat yi. Mhm. lépp loo xam ne mooy liggéey. ci cabinet avocat yi ñoom ñoo koy def ñooy bind euh, ni nga koy wax de seen seen yooyu ñuy ñuy taxaw di wax seen plaidoirie yeeg seen maanaam daal ñoom ñooy def liggéey bi yëpp. Mhm. ñooy dugal xaalis ci cabinet bi. Mhm. waaye daal ñoom te ay cadre lañu ay cadre lañu. Mhm. mais amuñu contrat avocat yi avocat yi ay cent mille lañ leen di rek cent cinquante mille. mooy ña mooy juriste yi ne ci cabinet avocat yi. ña laal fuy metti nag. ba dañoo sonn situation bi. ay déglu. di wax rek nag ñun ay ndaw ah, ñun ñoo nekk les de des de d'avocats ñun ñooy nekk ndaw yi yor dossiers yi ci cabinet de yi di gérer dossiers yi ñun ñooy bind euh, requêtes yi assignation yi ñun ñooy bind plaidoirie yi ñun ñooy topp dossiers yi tribunal ba am ci ndam ñun la maanaam gàttal ko ñun ñooy xool li cabinet d'avocats yi se trouve que ñun amuñ sa contrat contrat travail sax duñ ko am cabinet d'avocats yi duñ defal contrat travail salaire bu gën a ngand ay cent cinquante mille la cent cinquante mille wala cent mille si liggéey di ñoloo lu de travail mosul ñëw di xool suñu si nekkin nu ñu nekkee mosul am benn inspecteur mënu suñ mosul ñëw di xool suñu condition de travail gàttal ko rek mooy ñun ñooy ñoo xamante ni dañuy plaider ñu ñoo xam ne dañ leen noot alors que ñun ñu si bopp dañ dañ dañ noot

en attendant daal ñu nekk avocat ñu réussir ko ko baro bi bu ñu nekk avocat loolu moo ñu fa bàyyi mais en attendant moom instant bi moom ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu massacré waaw instant yi moom ñu ngi exploité bu baax a baax a baax a baax a baax ñu ngi exploité bu baax il faut que état wax ci loolu il faut que état wax ci loolu mënoo di di dugg tëm naan ay sept heures ñëw sa sa cabinet euh, sa bureau war a a bind conclusion yi a bind may plaidoyer la war a bind la xarañtul ci war def nga def ko nga egg sa vingt deux heures gën wala minuit gën naat encore six heures matin pour na egg at daal sept heures na nekk si si ci wax rek ñu dàq la ku ci wax rek ñu dàq la te dañoo solidaire seen biir suñ ma dàqee fu ma nekk nii fu ma dem tam kenn du fa jël beneen cabinet d'avocat du ma jël parce que dañoo solidaire seen biir lii la ñuy rencontré ci cabinet d'avocat parce que avocat waaye ëpp ñu diplôme ëpp ñu lijaas lan rek lañu ëppale mooy ñoom am nañ eh, titre pour eh, avocat maanaam am nañ autorisation eh, sol robe bi ñun amaguñu autorisation sol robe loolu rek mën a suñu différence mais ñu ngi ñuy exploité exploitation boobu bu jéggi dayo bu jéggi dayo situation bu ñuy dund nii mënu continuer parce que chef de famille un au cadre au cadre autant pour moi ba pare si nekk chef de famille di am cent mille par weer situation boobu si ce n'est pas une situation déshumanisante je ne vois pas situation alarmante que nous vivons. C'est vraiment alarmante, alarmante. Parce que, imagine, hein, euh, un, comme nous, nous gérons ce qu'on appelle la conformité, le dossier, les contentieux des, des gros clients. Le cabinet, euh, avec le poids qui, pèse, c'est nous-mêmes, nous sommes, le cerveau du cabinet. Mais malgré tout ça, nous, recevons, nous ne percevons que 100 000. Et sans contrat de travail. Aucun, sans contrat nga loolu euh, chef métti na moo tax daal la encore rek nga tasaareel ma ko kuñ si mën a dama man ma wax bugg conseil ci société maanaam ku soxla un expert juridique un conseil juridique ci société dëgg yàlla pare naa pour pour ko parce que situation bi mënatul mënatul wéy métti na lool lool ba fu métti yëpp maanaam lépp lu xamante ne du du pénal ñun ñoo koy bind quoi les plaidoiries sont écrites dañ koy bind déposé ko maanaam mais su nekkee pénal la nag les plaidoiries sont sont orales ñoom ñoo koy defal seen bopp su nekkee pénal la quoi may téye nit tëj wala lay ko ba mu gën a kaso loolu pénal la ñoom ñoo koy defal seen bopp parce que loolu da nga ñëw taxaw def ko mais lépp lu xamante ne civil la commercial loolu ñun ñoo koy bind ñun ñooy bind lépp A ba Z ñun lépp ñun ñoo koy def ba xaalis bi dugg si dugg si cabinet bi lépp ñun ñoo koy def quoi maanaam ñun comme lenn mooy suñu différence ak ñoom kon nu ma la ko expliqué waxee sànq mooy ñoom sol leen rob ñun solo ci rob ah mais sinon loolu liggéey bi cabinet bi ñun ñoo koy liggéey liggéey cabinet bi yëpp ñoo koy liggéey ah, avocat moom tur rek si cabinet bi. Hmm, du dégg de. lii de mooy góor gu yuux. waaw wax dëgg nag Ndiaye nag kii kii kii daa jooy rek Ndiaye réew mi gëm nga am am ñu fayeekoon di liggéey te fayeekuñ am na ñoo xam ne suba ba ngoon jot li ñuy daj doo ko daj waaw te duñ fayeeku dëgg la te ñu ngi liggéey ñu ngi liggéey ah, ñu liggéey kay tam caaxaan weesuwul rek laa nanguwul hmm. nit di liggéey ci xaalis te fayoo ko xaalis kuy liggéey ci xaalis te fayoo ko xaalis ñaari ak ñaari nga ca hmm. mooy àq d'abord hmm. mës ngaa gis ku yor restaurant di fande di xiif am kay lekk avant ou après waaye da lekk moom baa nga ñàkk fayda lool kuy liggéey ci xaalis da nga ko war a fay xaalis. ba xelam dal. voilà lu mu fa romb fa la koy bàyyi. parce que mooy comme ñi nekk ci banque yi nii ay caissière xaw ma ñu nekk ci guichet yi. Hmm. ñuy compter ay millions di leen tegal ñu koy distribuer di ko distribuer ba ngoon jot ñu wàcc bu weer dee lañ leen di fay buñ ci paasee lekk ci mu jeex. Hmm. ameel nga leen àq te seytaane ngi leen di yoon. damaa bëgg xam njaay benn affaire par exemple boo nekkee ci benn benn liggéey hmm. ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñooy ñooy ñooy indi koom. ñoo ci gën a dee Sénégal loolu mooy problème Sénégal. ñi ñi indi bi dëgg dëgg dëgg dëgg. ñi indil. waaw ñi ne ca kaw ngeen koy indil ñoo koy lekk. non en fait non loolu sax c'est à du pays. Mhm. réew mi la xaalis bi demee boor. gis nga lii nii. Mhm. muy jooy nii. Mhm. nekk ci mbir di ca sonn te amoo ci àq. loolu la jàngalekat yi di jooy. te boo waxee ñu nga paas bu njëkk ba bu njëkk ba sama jamonoy ñoom pap ku nekk école di rey boppam di yéeg ak a wàcc. am nga maître instituteur boo teg ba ni comme kii laa bëgg a mel. Mm-hmm. effectivement mm-hmm. buñ la laajee loo bëgg a doon juróomi xale yoo dajale ñaar ba ñett seen yéene mooy màgg doon jàngalekat. monsieur mm-hmm. doon monsieur. instituteur. mais léegi si c'est tout à fait le contraire. xale boo ci ne yàlla nga màgg ba doon jàngal kan ñaana ma que lu tax a dévaloriser mhm. Mhm. Mhm. même chose bon c'est nag dugguma ci ay yi politique yooyu de xam naa ne ngi def li mu mën réew mi xaw a doy waar noonu mais li waa ji di jooy juriste bi avocat yi di liggéey ay millions ñoom ñu nekk ci cabinet yi di gérer dossier yi ñoo koy gérer ba noppi ñoom amuñu seen àq loolu la jàngalekat yi di jooy loolu la animateurs yi di jooy loolu la journalistes yi di jooy loolu la médecins yi di jooy alal moo dul doy am ñu koy jéem xam nga luy danger bi fii. Mhm. mooy naqaru xol bii nii. Mhm. mooy topp topp ba ca détenu ca kaso yi. Mhm. parce que peine bi ñu war a def seen liggéey àq bi ñu ko war a jox taxaw bi ñu war a taxaw détenu yi. duñ ko def. Njaay ecole bu yàgg ba ay éducateur lañu woon daawoo wax ay njaay wala ngay wax ay paas wala dara suñu musée rek ngay wax mais léegi xale yi ci turu prof bi la ñuy jaar. Ndiaye wala Diop wala wala Ablaye wala ci tur ba la ñuy jaar. amatul mit daal amatul mit ci li nga xam ni moom mooy. billaahi mën nañ benn prof boo xam ne madame donc lañ ko tudd. ñii muus lañ leen di wooye. <laughs> na ay prof yoo xam ne seen élèves yi muus lañ leen di muus. Eh, kii nee am na ko xam ne du ma ko wax. kii Aba. Mhm. mu ne jour bi gaynde yi mhm. daa gaare otoom xamatul fu mu ko gaare ba léegi mi ngi war oto bi. ak xam kii dafa bëgg wala. maanaam ci diggante bi téléphone Kalidou Koulibaly réer na fi feeñ. kii la moo bëgg. bu réer na fi feeñ. ñu ngi mhm. inauguré stade bi ñu ngi inauguré stade bi. Mhm. gaynde yi ñibbi nañu. Mhm. moom ba léegi xamul fu mu. gaaree gëlëm. Euh, Ford la matricule bi AA 638 AK Ford AA 638 AK nañu ko dimbale dégg ngeen. kii moom ab passeport américain la réeral moom. noonu la tudd nee na le vingt neuf janvier entre Parcelles Assainies unité vingt six mhm. ba fi nga xam ni moom mooy euh, unité vingt cinq ak unité 26 nee na képp rek koo xam da nga ko gis ba Grand Dakar nee mhm. képp rek koo gis mën nga ko woo ci numéro bi waaye man man je préfère nga indi ko fii ñu euh, mën koo woo waaw waaw sax Pape Samba jox na numéro bi waaw waaw njubla ngi dañ ciy laxasu mhm, Ndiaye oto bi oto bi moom daa amul borom moom mu kër Ndiaye loo taxaw Land Land Rover DK 53 71 X def na fa 10 jours. mu taxaw bu noir fële kër Ndiaye Lo. kon kay Ndiaye Lo yu borom. amul amul borom de. <laughs> lii lan la nga ne yow lii baat dina dem Ndiaye. Ah. jigéen ñi li ñuy dund ci ñàkk am doom kii wujjam moo ko mën woon ne ko dafay am doom vingt ans amul doom. luy loolu. wujjam. waaw ah. bañ ko takkalee wujj maanaam moom ñaareel la bañ ko takkee la aawo bi ne jëkkër ji boo ko fasul dafa doom vingt ans amul doom fu mu dem ñu ko liggéey la. Hmm? léegi yamul ci ñàkk am doom bi aaw dafa dem takk xale jëkkër ji moo la ko wax moom moo ma ko wax kii moo ko wax waaw nee ah. moom moo ni moo ne mu dafa takk xale jëkkër ji bu ñëwee ci moom day paan hmm, du am mat waaw yaa am mat day samp niil am na aawa yoo xam ne fondation la ñu ci kër de. Hmm. day forfait bu demee fee day forfait. day laal forfait hmm, hmm, yoo xam ne fondation la ñu ci kër. blessure la. bu ñu xasee ba laaj ma lu ci topp. la ah, ah. gaaruwaale yi njëkk yi njaay waa kër yi. boo ñëwee fii def l'homme du match fee nga def forfait blessure la loolu. nan déglu. ah déedéet xaju fi kay déglu. <laughs> tey ñun it fi na forfait boobu. li day am de. day am nga gis nga abaar. mais loolu ci solution. dem faju ji rek. wala nga changé <laughs> dellu sa club bu njëkk ba yenn saa yi la en tout cas euh, bu ñii di ree ñi la ñu ngi am euh, loo xam ne seen xool du féex. bokk mm. na ci naata mbay. Ah, waaw waaw ñu ngi mm. koy jaal bu baax yaayam ji dijee bubs ah mm. Boubacar Diallo moom itamit baayam bi ñu ngi ko koy jaal bu baax ak ñi nga xam danoo euh, ñàkk seen membre famille yëpp yëpp yëpp ñu ngi leen am sama benn sama bu nekkoon fii ndeysaan am di parce euh, que rek li yàlla lay def. Hmm. moom yàllaa ko xiiroon ci ci ci rajo bi. ak ci waa rajo bi. Euh, moom it ñu ngi koy jaar ay mbokkam. xam na ci moom. Hmm? Hmm? waaw. Abdoulaye Diop ne nañ dem allo président te xalaas bi nii la jeexee tey.